bismillah fii niin ak daala yàllaaw sawi baqa abi bi fiika yàllaaw man lawool amru yaa man laa sariika wasi wa ma lil waad li fiika وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي يا مون مامون جاجف انبياء يا جاجف فبوكي موري وارنا خمنا يا xam ne yaaya yoo jaajëf Cheikh Modou Mamoun jaajëf sëñ bi yaaya yoo jaajëf képp kuy murid war na xam ne yaaya yoo jaajëf eh, Cheikh Modou Mamoun jaajëf Cheikh Modou Mamoun jaajëf Cheikh Modou Mamoun jaajëf sëñ bi yaaya yoo jaajëf sëñ bi yaaya yoo jaajëf waa Daaru Salaam ñépp a xam ne yaaya yoo jaajëf murid war naa xam ne yaa yeeyoo jaajëf Cheikh Anta gërëm na la sëñ bi yaa yeeyoo jaajëf Cheikh Anta gërëm na la sëñ bi yaa yeeyoo jaajëf sëñ bi yaa yeeyoo jaajëf sëñ bi yaa yeeyoo jaajëf yaa Daaru Salaam ñëpp a xam ne yaa yeeyoo déet war naa xam ne Cheikh Modou Mamoun Cheikh Modou Mamoun Cheikh Modou Mamoun sëñ bi yaayeyo sëñ bi yaayeyo waa daaru ndéem ñëpp a xam ne yaayeyo jaajëf nawleem yépp moo leen mënoon ci pas-pas pas-pas ba mooy dox ba nëgëni kon sëriñ bi nga ñaanal nu nee na yal na yàlla dogal nga yàgg fi lool ndam li sëriñ Modou Rokhaya yéene woon yow mii nga àggale ko te ñu ànd koog yow ndax xam nañ ne yow boo ko ñaanee yàlla dana ko def ndax fii mu ne lu ñuy wax amatut sëñ Maamun nee na moom daa contre wax ndax dafa bari léegi ba naa fekk yi sax fekk si nañ ci kon nag nañ folli wax tey jëf góor jëf moom lu mu tuut tuut fu waxkat yi toll du seen jëf jëf wax nag munte bari ba kenn mën koo séen baa mu am njariñ kon li yàlla yàlla na nu yàlla dimbale nu doon ay jëfkat fii moom liñ fi waroon a wax wax nañ ko lépp nee na du ci teg dara bisimilah kon dafa wax ne sëriñ Modou Mamoun Diagne nga agsi su ngeen jébbalee ba noppi ñu soog a tàllal sëriñ bi ñaan teg ci kàddu yi mu ci tàggu ñaan. di leen siyaara di leen baalu àq di leen baal àq di sant yàlla bu baax dolli ko ci liñ ko doon sant yàlla mi ngi xam ni si moonu fi bàyyi woon daaw baaxee woon ban toogaateen fi kanamam te diggante daaw ak ren. suñ borom jëfandikoo na fi lu ne kon nu ngi wax ne alhamdulilahi rabbil alamina sëriñ maam Cheikh Anta waa fédération xidmatul xadim ñi ngi lay nuyu ñi ngi nuyu sa yu baax yi dend ak yow te ki ci jiitu sëriñ Mamoun Mbakke ak rakkam yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi nu ngi nuyu cheikh yi toog fi sunu kanam di nuyu taalibe yépp di beral nuyoo bu sell bu tee ñi bokk ci fédération xidmatul xadim muy daayira boo xam ni sëriñ bi moo ci joxe woon ndigal ñu ngi ko tàmbali woon l'an 2000 ba tey jii ci ndigalam lan ko doon dox ci lan doon wax ci lan doon def yàlla dogal na nag ñi bokk ci daayira bi ñi cëpp ñëw nañu jataay bii tey fédération xidmatul xadim ñoo ko jëkke xalaat waaye la taxan ñu xalaat ko mooy sëriñ Cheikh Anta mi gis nañu ba fi sëñ moo doxee jógee ba tey jii mësunoo gis mu woote ay tool di baylu mësunoo gis mu woote ak kër di ko tabaxlu mësunoo gis mu laaj dara jëme ci boppam ma ñëw fii waxtaan ak El Hadj Sëñ Wade mi ak El Hadj Cheikh ni ko nun kat sëriñ bi am na loolu war ci suñu digganteeg moom mu ni nañ ko laaj ndigal ma fekk Touba ni ko danoo bëgg a sàkk bisu siyaar mu ni bisimilah jox naa leen ci ndigal wax jooje moo jur lii. léegi nag sëñ Maamun dafa am lu wax léegi te sëñ Touba moo ko waxan boppam ni wax fu mu nekkee wurus noppi nekk xaalis nee na wax jërëtul bari jëf rek moo mat bari kon. dañuy nettali rek juróomi wax yoo xam ni maam Serigne Touba Xaadim Rasul ay siin maam moo ko waxan dafa nettali waxi waaju baax muy Seydina Aliou karamala wacco wax ni na Aliou da daan laaj ni ñaar nay jiitu ñaar ñu ni ko ban ak ban mu ni xarit nay jiitu àndandoo na tànn xarit doo door a demu yoon kon dem gépp aw yoon yoonu waaye mën a yoon yoonu jëm ci yàlla ak Serigne Touba moo gën a wér moo gën a wër te mu nun ñi moom lañ ci àndal moo tax nu tànn ko la ca des mu ni ñett day dindi njaxare xool ak aaji joo xam ne kenn xamul foo koy faji ci àddina ak àllaaxira mu ni ñett yii da koy saafara déglu leen ko bu baax loolu bokk na ci li waral siyaare bi ñett day dindi njaxare xool ak aaji ju rëy joo xamul fan lay fajoo ñu ni ko ban ak ban mu ni toogaaleeg aalim borom xam-xam bu baax mu di la digal nga di ko ngay jëf mu lay tere ngay bàyyi ku ne xam na ni aalim la mu ngi ni joxe ndigal lu mu digal fas ko yéene def lu mu tere fas nañ ko ci yéene jaar ba ca des mu ni jàkkaarloo ak ak ab soppe day saafara jàngoroy xol ak aaji joo xamul fan lay faju àddina ak àllaaxira de seen seexante bi yéen ñëpp yéen ko sopp juróomi yëf yooyu moo waral lan nu ni nan siyaari ji la ca des mu di daayira yi sëriñ bi moo ko santaane woon yéen a ngi nii noo ngi nii mi ngi nii budul woon lu dul noona duñ fi taxaw di wax kon nag dañuy déglu ci moom ndigal mu soññaat nu ngir fu fi waay mën a bokk te bokk ci gën nga fexe ba forme fi ab daayira àndandoo nu yëkkateendoo di tegandoo di xàccendoo di dóorandoo di àndandoo di liggéeyal xaadimu suuli ndax kat Galas wax na ko léegi boo xamee far sa ay ni xam farata yi julli yi ni nga ko xamee xam la ca war lépp nga def ko mbendam yow yàlla dalay fay waaye saa boo àndee rek mbooloo mi defandoo ko yàlla dalee fay ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar ba ñaar fukki ak juróom-ñett jëf yu baax yi itam lii ñu dajale tey ku ci def ñaar fukki dërëm ak ki ci def junni nu lim bi toll kenn ku ne am nga yoolu lim na mu toll kon loolu moo waral àndandoo di liggéey ak jëf ci mbooloo ànd jàkkaarloo ak ab soppe nag day faj aajo addina ak àllaaxira mi ngi ñuy nuyu ñun mbooleem ñi fi teew bokki taalibeem yi fi teew ñu xam ne ñun ñëpp ay taalibey Serigne Touba lañ waaye nag Serigne Touba rek moo mat ab sëriñ ku jàpp ci sëriñ Touba jàpp nga ci lu wér jàpp nga ci lu wér jàpp nga ci rasulullahi jàpp nga ci ci sunu borom tabaraka wa taala nee na moom ay kàddoom du ci bari de ndax sëriñ Modou Mamoun waxoon na ko ba nopp sëñ Maamun noon na sëñ bi lu bëgg sëñ bi lu mu bëgg nun ñëpp mën nañ ko nun ñëpp nanu ñaanal nag wërsëg bu bari rek ay milliards rek nag lu mu bëgg nu def ko kon nag la sëñ Maamun waxoon rek sëñ Tuba loolee mu faye woon ko ña siyaare ji woon Sarsara sunu siyaare bi na daal di dugg ca sarsaara ja amin nee na pajuk aajo jooju sëñ Maamun wax na dugg ca biir sarsaara ja bi may woote nag bi may woote nag dafa am yu bari yoo xam ne dama cee woo dafa am yu bari yoo xam ne dañu cee woo gis ca gis ca lam ñu wooyit mu gis ca njariñ loo njariñ loo xam ne xam naa ne it njariñul njëkkante la giiroo université bii Sëriñ Tuubaa bindul ne sans borom maa ngi lay ñaan ab université wala daara ju mag waaye daf ne ci darajey Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sunu borom tabaxal na ma madrasatan muy daara ju mag ah, nee na loolu lu noppi la loolu nag mooy waxiinu sëñ tubaa sëñ tubaa damaa waxoon ne sëñ tubaa fa mu toll ci sama borom boo koy wax ci jamono jii mën ngaa wax rek ne personnalité bi sëñ tubaa ëpp na mu tàllal loxo di ñaan sunu borom loo xam ne wóorut boo xam dana ko mayam déet nee lépp loo gis sëñ Tuubaa di ko ñaan rek lu yàllaahu ya bari bari fekk na lum ko may ba mu làq ko ba noppi la waaye du ñaan mukk sunu borom lu ko may moo tax ma wax ne daara jii ku yeex saw ñaq du ci dem te ñàkk caa def saw ñàq nag da nga ñàkk loo xam ne danga ko jéem a dab te doo ko mën a dabati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan wax ne bokk na ci li gën ci ab julit mu gas ab teen nit ñi di ca naan ku ca naan tuyaaba ja fekk la fa nga ne jëmbat nga jëmbat garab. ker ga naat. ker ga nit ñi di ca toog. nit ñi di ca toog. di fa sant yàlla. foo mën a nekk. foo mën a tuyaaba ji dala fekk fa nga ne. ak leneen ak leneen. ak leneen ak ma gis ne. ma bi kat. moo gën a yaatu garab. moo gën a yaatu garab. moo gën a yaatu teen. ndax ñiy jàng ci université bi. ay junni junni la ñuy doon. doon. te bu nu génnee ci université bi ñii danañ doon ay docteur yuy faj ñii nekk ay imam yi juma ñii nekk ay professeur di jàngalekat waaye ku ci sab dërëm dugg nag foo mën a nekkati ci àdduna ba ba dem àjjana sa tuyaaba di la fekk fa nga ne te université bi benn murid rek mën naa sasoo 37 milliards yi def ko boo demee doo fekk dara. fekk dara. dama leen dañoo mas a nekk xel koom. sëriñ mas wax nañu ne. sase naa leen Ngéejaan. sase naa leen Ngéejaan. ak Ndoka. ak Lagan ak ba ci ginnaaw bi. ba ci ne. Serigne Saliou ne. teggil naa leen Ngéejaan ji. teggil defar rek. na defar rek. Ndoka Ndoka. ak ak Lagan. ñu defar ndooka ak lagan ba noppi bi may xëy di seeti sëriñ Amidoun jawri ñi ngéejaan ji nañu sëriñ bi yéen dey bu ngeen demee dana taw te ñun kin jox suñ ruuj bi du agsi ndax kin ko jox mbooloo mi mu yor maa leen jëli woon ci sama tracteur bi loolu de bëriwut danaa ñaan ndigal ma daal di woo Saliwu Jaxate ma daal di woo Saliwu Jaxate ca wetu sëñ Saliwu ca sëñ Saliwu na ko man de dama doon ñaan na ko man de dama doon ñaan sëriñ bi ndigal lim ñu sasoon fii lim mat na mat na waaye waa Ngéejaan waaye dañoo xaw a jaaxle ci seenu sas ma bëggoon ma bëggoon mu may ñu ndigal mu may ñu ndigal boole liggéey bi ñu boole ci liggéey bi. Ngéjaan Ngéjaan. ñu ruuj ñu mu defal taalibe yi. mu xéewal yu toll ni géej yi. xéewal ci téléphone bi rek la dégg sëñ saa ko mën na ko ëpp. danañ ci am lu ko ëpp. ma daal jawal ci sëñ Amidun. jaar ci sëñ Moustapha Abdoul wax ko ko. mu ànd ak man bañ demee ci sëñ Amidun am ñu bari ñu ma gàttandu naan ma sëñ bi liggéey bi àgg na bul fi dolli liggéey ndax nawet bi ñëw na nit ñi it sonn nañ kon bàyyi nit ñi ñu dem ñibbi muy ko baax wala ñu baax di kilifa ma ne ko sëñ bi yow ginnaaw liggéey bi àgg na. yow ginnaaw liggéey bi àgg defal li dal sa xel. man liggéey bi àgg na. bàyyil ma def li dal sama xel. ma ñëw yëgal ko sëñ Amidun. sëñ Amidun na ma loolu na ko ñëpp yëg. waaye booba am na ñoo xam ne. li ma gis daal ñoom gisuñu ko ba dee ne mënatuñoo dem. ku ma wax rek. nga ne maa ngi topp ci yow ma daal di may sa mbay mii tey na ko yéeneel neel mbooloo mi taalibe bu ñuy wax Serigne Cheikh Anta képp koo xam ne mooy sa wasila na képp koo xam ne mooy sa wasila nga fekk ko Ngéejaan moom nag jiitu ji ñu dem Ngéejaan ku ma woo rek nga ne ma sama oto daal ma ngi ca godron ba lee mu àgg. waaw fi mu nekk daal. Eh, dem kër gi rek moo baax. dem kër gi moo baax ci man. ma ne leen baax na. ñuy liggéey ngéejaan. ñuy liggéey ngéejaan. ba digg bëccëg. ba digg bëccëg. ñëw fa. sëñ Amidou ñëw fa. bi mu gisee mbooloo mi. bi mu gisee mbooloo mi. ñu jiitle. ñu jiitle. mel na ñu ne ci ab xare. na ñu ne ci ab xare. nga xam ne daanaka dañuy daw. nga xam ne déj bi ëkk bi boo déjee benn da ngay daw soo ko gisaat beneen. liggéey bépp kero aw xel la sëñ am dundi jooy jooy yu métti ba attanatu ko ma ne ko ya daal sëñ bi da ñoo waroon a ñaanal si ñëw jiitu ji léegi rek ñu fekk la daaru te lii da àgg balaa jant bee teel teel teel wax na dëgg de léegi wax na dëgg de murit day daanu keroog daal fa ñu nekk ba jant bi so ñu taal lumière oto yi oto yi di arrière di niital nit ñi di niital nit ñi ñuy gor ak dajale ba liggéey ba àgg ci guddi ñu ñëw ci Serigne Saliou mu ne liggéey bii ngeen doon liggéey de dañoo jub Serigne Saliou mook Serigne Moustapha Serigne Saliou na leen am ngeen ndam de ta yéene leen ko lool am ngeen ndam te yéene woon naa leen ko lool ndokk ba ngeen ko jëfee ba nu jëfee liggéey boobe muy liggéey boo xam ne muy liggéey nag bu yéeme boo xam ne ku ne ci kaw suuf ci kaw suuf liggéey boobee ba mu noppee sëñ Saaliwu santaane wut beneen ci la jël santaane ab liggéey ci àdduna ma gis na loolee ma na loolee xéewal yi ca nekk nangu woon ñi nangu woon raw nañ sëñ mu roqee premier rek ña gàntu woon raw nañ leen ba faw te mënutuñoo dabe ah, liggéey bi itam liggéey bi itam bokk yu bari bokk bi ma waxtaanee ñoom ñu ne joxe woon nañu addiye barki démb rek joxe nañ cent soixante-douze leen addiye ji bokkut ak daara ji de addiyee ji nun noo ko sas sunu bopp ndokk ba nga xamee ne nag ndokk ba nga xam ne nag ci sos loxo yi kaddu sëñ mu roqee la bàyyi ko ci kaddu sëñ mu roqee la bàyyi ko ma bëgg université bi moom ku ci def dana àgg ku ci defut dana àgg te ma bañ. boo lëgee boo lëgee. nu teew nu teew. sëñ Touba teew sëñ Touba teew. Seex teew. Seex Moodu Roqaya teew. ñu ne daara jii nga xam ne sëñ Touba am na ko Touba. ñu ne daara jii nga xam ne sëñ Touba am na ko Touba. waa Daaru defuñ ci dara waa Daaru Salaam ci dara. yéen moom. moom ñun njabootu sëñ Moodu Roqaya. bëgguma njabootu sëñ Moodu Roqaya. bëgguma njabootu sëñ Moodu Roqaya. bu bis boobaa bu bis boobaa ñu bokk ci ñu ci deful dara te ku ci deful dara da nga rus ndok ku def dara ku ci def dara dootoo ñàkk dara alhamdulilah euh, kon siyaare bii nga xam ne kon siyaare bi nga xam ne fédération bi woote woon nañ ko fédération bi woote woon nañ ko euh, dafa mel ni man lañ ko defal mel ne rek man lañ ko defal ndax waxtaan wii laabiire bokki taalibe yi. laabiire li nekk ci daara ji. li li nekk sëñ Muntaxa di tabax. li ci nekk ci ay njariñ. mënee su ko jeexal. mënee su ko jeexal. kon nag. maa ngi sant bu baax. waa fédération bi woote woon ziyaara bi. waaye nag ñii nga xam ne ñooy samay bokk. muy bokki taalibe yi ndax man kat danaa leen xamal loo xam ne ñu bari xamuñu ko woon maam Cheikh Anta ba mu liggéeyalee Serigne Touba ba wàcc sëñ Modou Mamoun amul woon kenn ku mu bokkal ndey ku góor ku ko mën a jàppale mu wëlbatiku def dongay daara yi ñuy ay mbokkam mu ànd ak ñoom ñu dem yowet liggéey ba wuutu sëñ gaawante jafe woon na lool waaye dafa mel ni li sëñ Moodu Maamun jëf day mel ne ku ko dugal ci liggéey bu borom gaawaan mu sori lool billaahi loolu luy dox la luy dox la sëñ Moodu Maamun bi mu wàccee dem àjjana sëñ Modou Rokhaya amul kenn ku mbokkal ndey ku góor ku ko jàppale mu wëlbatiku dem ca dongo ya nag rek na way juróom defoon rek féeteeg dongo ya bokk ak ñoom ndey bàyyi ñu ànd dem ginnaaw si ginnaaw maam Cheikh Anta. defe naa ne ginnaaw maam Cheikh Anta. bu fi sëñ Modou Mamoun nekkutoon. bu fi sëñ Modou Mamoun nekkutoon. loolu nga doon junj. loolu ñu doon junj. di wax ne borom gaawaan bi muy wax sëñ Touba. borom gaawaan bi muy wax sëñ Touba. Modou Mamoun mën naa yeesalaat Darou Salaam. Modou Mamoun mën naa yeesalaat Darou Salaam. da ngaa juum wax 1927. dañoo juum wax 1927. waaye 1917. 1917 la. 1917. 1917. bi sëñ Modou Mamoun ñëwee fii. bi sëñ Modou Mamoun ñëwee fii. gaawaan laaj te sëñ gaawaan laaj na. yéen mbooloo mi yéen mi. ku nangoo ànd ak moom dem Daaru Salaam. ku nangoo ànd dem Daaru Salaam. ngeen dekkalaat Daaru ngeen dekkalaat Daaru Salaam. kenn ñu bari wutu lay. ñu bari wut aw lay. ñu néew dem ñu néew a dem. waaye tey jii. waaye tey jii. bu màggalug Daaru Salaam ñëwee. bu màggalug Daaru danañ xam ne. danañ xam ne. dëkk bii dëkk bii. jirim boobee ñu daan wax Modou Mamoun. jirim boobee nga xam ne mosutoon weenu yaayam ñu daan ko wax Modou Mamoun. dekkal na dëkk dekkal de. te ko ànd ak moom raw nga ba faw loolee dellu si sëñ Modou Mamoun liggéeyal sëñ Touba. sëñ Modou Mamoun liggéeyal sëñ Touba. ba wàcc sëñ Modou Roqee dikk. nag dikk. sëñ Modou Mamoun teg ko yan bi. teg ko yan bi. moom itam moom amul kenn ku mbokkal ndey. kenn ku mbokkal ndey. ku góor ku ko mën a jàppale. mu wëlbatiku mu dem ca taalibe yi rek. bokk ak taalibe yi ndey ak baay loolee nag moo dox ba mbooloo mi daje fii rek muy loo xam ne muy loo xam ne eh, sëñ Tuubaa sampal boppam sëñ Tuubaa ko sampal boppam samp fi maam Cheikh samp sëñ Moodu Maamun samp sëñ Moodu Rokhaya kon kon ñun taalibe yi fi daje nañ boole suñu bopp ci samp boobee rek sëñ Tuubaa moom du samp luy daanu du samp luy daanu mukk te it wóor na ma ne liggéey bii ni ko sëñ mu Muudu Maamun waxee rek yéex gi ngeen ko yéex a dégg yéex gi ngeen ko yéex a dégg wala ngeen yéex a dégg ndigal loolu dong moo tax moo tax waaye kon ba nëgë ni waaye kon ba nëgë ni jébbali ngeen na ma ne seen pas-pas kon indi ngeen liñ ciy def bu yàgg yàgg yàgg kenn ci ñoom képp kenn ci muy sëñ daam caam wala sëñ musaame wala sëñ aliyu mi wala sëñ ablaye ndiaye nga waxee wala sëñ ibrahima ndaw tàllañ wala sëñ daaru baaxum wala sëñ ousmane kum mën a doon ci seex yi rek boo sañoon li ñuy def ci daara ji yaa koy def am nga yéene ji am nga xol bi kon li sëñ Maamun waxa ci des nu ñaan rek sunu borom sotti ñu ay xiiwal te dolli wér gi ba fu nu bëgg àgg rek nu àgg fa milliard milliard fu nu bëgg a àgg rek nañ fa àgg milliards yu ànd akub wér milliards ay milliards sëñ bi ne doylu ci nun مليك يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله خدست سري يا قدوس